ndaak merci beaucoup c'est très gentil maa ngi lay nuyu euh, di di nuyu waa plateau bi yëpp waaye di nuyu également sunu sunu sunu papa sunu sunu xarit le grand artiste tonton Souleymane Faye liggéey bi rafet na kontaan nañu macha allah waaye nag bu ngeen gisee fi ma nekk xam ne maa ngi ci digg mbënd bi. te tey je pense que fii ñu nekk dafa nekk bërëb boo xam ni mooy bërëb bu bu sell bërëb boo xam ne wax dëgg yàlla mënoon nañ épargner ci li nga xam ne mooy inondation sax mais nag lu yàlla dogal moom kenn mënu ci dara ñi ngi fi nga xam ne mooy Cambérène xolu Cambérène ci wetu Juma Médine bi ci la ñu nekk tey et je pense bu ñu gisee ndox bi nga xam ne moom lañ fi fekk ci inondation population bi léegi rek ñi ngi doon manifester wu ak force de l'ordre mu nekk benn benn désarroi boo xam ne wax dëgg yàlla kenn bugg ko mais fi ñu toll nii jeunes yeeg mag yeeg maire yeeg yëpp xaw a mer parce dañu am ay canalisation yoo xam ne dafay jóge fi nga xam ne mooy parcelle ñu daal di koy verser fi nga xam ne mooy Cambérène te Cambérène bi nga xam ne moo jege géej gi mënul bénéficier wu ci li nga xam ne mooy canalisation c'est un c'est un c'est un problème c'est problème c'est un grand problème mu nekk loo xam ne ñëpp ñu ngi koy naqarlu te wax dëgg yàlla tey bu ngeen gisee fi ma nekk lëndëm na courant yi coupé nañ waaye nag euh, Cambérène bi yëpp yëpp yëpp inondé yëpp inondé fi ñu toll nii dafa tooy parce que bu fekkee da nga ne am na ñoo xam ne ñu ngi nekk seen kër ñu ngi nekk ci jàmm mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci Cambérène du Cambérène rek ah pratiquement Dakar gi yëpp a inondé tey parce que taw bi bari na ndox bi bari na parcelle Parcelles waaye Kër Massar ci région yi fépp taw fépp a taa ba tax na tey ñi ngi fi nga xam ne benn place boo xam ne jaamu jaamu yàlla rek lañ fi war a def tey bu ñu ñëwee gis fi ndox bu baree nii euh, suñu xol dafay tooy sunu xol dafay metti parce que lu toll ni juma nga di fi fekk ndox loolu dafa daanaka nekku neexu si xol MP damaa bëgg nga jege ma ndànk nga ñëw dugg fi nga xam ne moo ci biir juma ji ñu daal di xool xam ne wax dëgg yàlla c'est un jeune mu yàgg combattre li nga xam ne mooy li ni mu nekk Mame Libasse ñu ngi koy nuyu di ko bu baax waaye nag wax dëgg yàlla di la ma saw parce que lii nekk na loo xam ni ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk Cambérène am fi ay mbokk am fi ay sœur papa ay ay lu nekk euh, tey ñi ngi leen di masaw ci li nga xam ne mooy mooy mën bi tey naka nga gisee lii. waaw bisimilah rahmaani rahiim ñu ngi sant yàlla bu baax euh, di di di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di ñaanal suñu rakk Pape Assane Gaye bi fi jugee barki Demba mu nekk un jeune boo xamante ni si ni ndeysaan ku yaakaaru la woon ndax c'était un jeune exceptionnel koo xamante ni ku gëmoon bàyyi laay la ñun tiitunu ci fa mu jëm ndax ki nu yaakaar gëm ko wax nañu suñu tolluwaay ci moom ci buñ ko gëmee ba pare sax ci ay ndigalam te am nañu yaakaar ni moom mu ngi woon ci loolu ndax loolu ñu gisoon ñu ngi sant yàlla bu baax ci moom mais euh, li tax mu gën a metti moom mooy ni mu demee mm-hmm. ni mu demee ndax euh, comme ni nga ko waxee léegi ci wax bu rafet bi nga wax muy Cambérène nekk dëkk boo xamante ni waxuma sax dëkku diine mais dëkk la boo xamante ni si dafa yàgg a participer ci développement wu Sénégal dafa yàgg dimbali dafa yàgg def partenariat ak gouvernement bu Sénégal depuis Senghor ba suñu joon yàlla tey jii nii lépp lu ñu amoon ñun jox nañu ko état mais au retour état ñu dara loolu lu ñuy déplorer la parce que euh, dañ daf ñu naqari woon au temps de Senghor ñu amoon yaakaar tuuti ci ab Abdou Diouf Abdoulaye Wade ñëw wan ñu ginnaaw. Mhm. mu naqari nu trop ñu am un jeune boo xam ne après l'indépendance la juddu ñu yaakaaroon ko nag. waaw parce que bi ko ñëpp yoo mu génnoon ci ab Abdoulaye Wade fii lañ ko recevoir woon en 2008. Mhm. yóbbu ko ci sang yi ñu ñaanal ko. daanaka fii lañ ko waxee sax ne ko fa ngay jëlee. voilà lu bari xew fii xam nga tey mu dem ba toog fàtte nu mhm. loolu moom lu ñuy naqaru la daf nu fàtte parce que bi mu ñëwee dafa fekkoon ñu amoon ay problème ak nguur gi fi nekkoon mu nekkoon ONAS bi tey dellu si ndaxte boobu tuyau bi dafa dafa commencé woon di xeeñ te li ñu waxoon ak état bële defu ci dara léegi tey moom mu ñëw ñaanoon ñu deux ans 2012 2014 la woon mais tey ñu ngi toog di muñ ak moom ba tey jii nii nga xool Cambérène moom mooy percevoir tous les eaux usées de Dakar chaque jour ñu ngi fiy verser quarante mille mètres cubes d'eau maanaam quatre million de litres d'eau moom la ñuy verser Cambérène est que tey Cambérène mérité na am problème bii nii. te jege géej te géej gi président Macky Sall bàyyil xel Serigne Ablaye bàyyil xel Seydina Issa Rouhou Laye mm-hmm. mm-hmm. am na loo xamante ni si nii mënul wéy. Mm-hmm. ñun dimbali nañ la ci côté bu nekk mais yow delloo woon njukkal Cambérène loolu moom lu ñu lay wax la yow lii dañuy wax ONAS dañuy wax ay ministre bi du kenn man pour man c'est le gouvernement te gouvernement bi Macky Sall la. en fait euh, comme li nga wax léegi rek nga baal ma ñi ngi ñi ngi jaal ñi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ñoo ñàkk seen doom mu nekk jeune boo xam ne comme ni nga ko waxee dañu amoon espoir ci moom tey nag Cambérène ñëpp ñëkk a ñëpp a ñàkk ndax bu dul woon euh, yi nga xam ni ñoo fi jaar amaana du demee ni parce que ndox bu bari moo tax seen mur daanu ba li nga xam ni xew ci moo ci xew mais dans tout ça ñu bëggoon xam rek aussi c'est vrai que état état mi ngi fi et parce que lu toll ni canalisation je pense que booy defar dëkk loolu dafa war a bokk ci li nga xam ne mooy jiitu waaw mais tey euh, bu ñu gisee Cambérène boobu ba léegi ça fait des années parce que man fi laa juddoo fi laa yaroo te boobu ba léegi ñun dañu yàgg dégg ci li nga xam ne mooy problème mu canalisation tey ñu gis ni euh, kat Cambérène c'est vrai que état bi boobu ba léegi comme yéen a ngi koy xaar gisuleen leen ko ani autorité yi nga xam ni ñoom ñoo fi nekk te bari na ay autorité qu'il faut qu'on se dise la vérité aussi. xam nga xam nga cité religieuse la. Euh, am na ay marabo ñu leen ziar au passage ndax ñoom li leen war ñoom ngi ci. ndax bi mbir mi amee dajale nañu compétence yi nga xam ne moom lañ am ci dëkk bi woo leen yaakaar leen muy benn comité bu ñuy wax SIDEC ñoo ñoo nekkoon entre euh, LONAS ak Cambérène voilà bi ñu demee nag tey ba affaire bi tollu fii dañu wax nañu ko yaatal pour mën a jëlee les pour lii mën nu dalaat bañ noo dalaat mais gis nga tey ndox mi ñu doon kaas mu doon jugee unité neuf di eau bi tey dañ koo ubbiwaat baa xam nga ni miir bi rayoon xale ba dafa daanuwaat waaw loolu laa dégg sànq seen kër beneen mur dafa daanuwaat. mur boobu noonu moo daanu ñu tabaxaat ko moom moo daanuwaat tey. Oh. parce que ndox bi doon ñëw moom moo ñëwaat. dafa am doole dafa am doole parce que eau usée la. mais est-ce que loolu du risque pour population bi nga xam ne instant yi ñu ngi dund calvaire. loolu moo metti manifestant ñi nga gis fii nii ban da fi gis ah gis gis nga fi ba kenn ku am vingt cinq ans. Ah. vingt ans rek la ñu am booy. Mm-hmm. ñoom ñoo jëlal affaire bi seen bopp léegi nag su su tolloo fii nii ampleur bi muy bi muy dem day dem ba dootuñu ko maîtriser ngir loolu bañ a am état du Sénégal nañu respecté Cambérène mm-hmm. nañu respecté Cambérène ñëwaat fii nii parce que comité boobu noonu d'ailleurs suba sax dañuy organiser benn collecte de fonds fii au niveau de la mosquée mm-hmm. pour dimbali les sinistrés mm-hmm. tey xoolal ndox mi fan lay jóge de la police laa la wax demal nga xool li ma la wax de la police des Parcelles Assainies lay déparé ñëw Casba benn bu jóge Cité Fadia ñëw kaas ba wàcc si Cambérène nga ñëw côté bii nii unité 7 booru kër Demba bi lay jóge wàcc si ci pharmacie bi duggaat Cambérène jaar buntu kër Seydina Kane nga jëlaat côté unité 15 bi foofu lay jóge wàcc si Ndiaga Mbaye nga dem ci VDN bu bees bii ñu defar tey foofu lay déparé wàcc si Cambérène nga dem côté Cambérène 2 foofu lay déparé wàcc ci Cambérène tali kan moo koy defar du Ageroute est-ce du complice pour xeex ak Cambérène c'est un point d'interrogation boo xamante ni sénégalais yi laa bëgg kenn ku nekk si ñoom ñu médité ci. benn beneen bi moom mooy tey gis nga bu njëkk tali entre Case ba Cambérène. Hmm? tali entre ba Cambérène. bii daf nekkoon ci suuf bi nekk ci kaw. ñun dañ fa doon lem di wax kaa leen déglu ci concert mbott yi parce que foofu lañ doon toog di dégg mbott yi di dem ak ñëw mais bi ñu demee ba benn instant nga xamante ni si ni euh, tali bi ñu ngi koy defar. bi ñu ko defaraatee ba pare dañu ko élever bi ñu ko élever dañu utal ay bordure côté yi dafa amoon un partie d'eau boo xam ne dafa doon wàcc interset mais dañu ko murer tey nga xam ne dootul wàccati interset dafay jubal directement Cambérène yooyu ay ay ay point d'interrogation la yoo xamante ne si nii bëgg nañu bu fekkente ne dañ ko teg ci ingénieur ñu wax nu ñun lan moo tax tali bi déparé jàmmalaay pant bi ñëw Cambérène bii déparé Géejawaay pant bi ñëw Cambérène bi fajaa pant bi ñëw kaas ba bii police pant bi ñëw kaas ba lépp ñëw Cambérène est-ce que dañu war a bàyyi noonu rek après ñu ni pour ñun ñu def ko suñu bopp man d'accord ma ci loolu. parce que ñun dañuy contribuer ci état. lépp lu ñu def dañ ci am part boo xamante ni si nii dafay dem ci état est-ce que xam nga ni Cambérène amul assainissement. mais suñu facture ndox yi am na part de l'ONAS. Mm-hmm. depuis 96 lañ am robine ba tey ñu ngi koy fay. donc loolu yëpp nga koy fay après yii lii lii dina daal booy di manifester après policiers yi di ñëw di leen dóor ay lacrymogène ak ay yu kenn xamul mais loolu noo koy tuddee. <laughs> en tout cas en tout cas doy na waar doy na waar ce point d'interrogation je pense que ñoom ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi ak autorités yi nga xam ne ñooy toog di seetaan dinañ ci def benn taxaw seetlu euh, te dafa nekk loo xam ne wax dëgg yàlla maam li baas évoqué na ko léegi nekk na lu doy waar loo xam ne je pense a dépasser stade bi ñu nekk Sénégal comme ni ñu koy waxee Sénégal émergent waroon nañ mën a dépasser mën waroon a dépasser yoo xam ne wax dëgg dëgg yàlla mënoon nañ ko fàtte dix ans en arrière mais tey bu demee bay dundaat lii nga xam ne mooy inondation ça veut dire que y a un problème boo xam ni tey war nañ mën a taxaw def seetlu ci li nga xam ne mooy environnement bi euh, Ndeye Ndack je pense tey liñ fi gis daw na yaram mais damay dem rek sànq dafa am lu ma xaw a ci parce que booy ñi ngi ci mbedd bi di manifester wu di taal ay pneu parce que seen xol moo jeex li nga xam ne mooy eaux usées yi nga xam ne ñu ngi jugee ci yenn bërëb yi di dugg si Cambérène te neexul ci xol nag Sénégal benn bopp la comme ñu ko waxee rek nañ ko defarandoo ñun ñëpp ñu daal di nekk ci jàmm tey ku gis ku gis li xam ni nag euh, kenn nelawul te kenn kenn nekku ci jàmm donc ñun leen ni ñaanal suñu borom teggil leen li ci nu mu gën a gaawee en tout cas voilà di leen delloo antenne bi di leen wax ñu ñëwaat léegi ci li nga xam ne mooy Cambérène incha allah. Euh, merci beaucoup maa ngi leen jaajëfal vraiment waxoon naa leen ni waxtaan bi dañ koy tàmbali parce que dafa nekkoon loo xamante ni daanaka dañ ko kale woon waaye ñëpp xam nañ ni ñun vous et ñu ngi koy tourner en direct kon lépp loo xamante ne actualité la incha allah dañ ciy dem ba jeex waaye nag tey nit nit kese la ah. di nga professionnel waaye sama xol fees na waaye Sofia mi je pense que bu mm. nekkee kilifa yaa ngi koy seetaan lii jar na xool ah man tey su ma am fi ndogal tey man xale bi dama koy décorer ah dëgg la barke Serigne Saliou mat na ko ndax jàmbaar la borom Pastef la te liggéeykat la gis nga ndaak xale bu amee jom nangoo liggéey nekk ci barab joxe bakkan des koy delloo. non kii joxe na bakkan ah barke Serigne Bamba Mbàkke li man ak li mënul lépp mi ngi koy def ngir liggéey bi dox. loolu nag ñun bu ñu dee ay nawleem di gor toog jàkkaarloog moom danañ ko ci